asalaamaaleykum tey nag ñu ngi ñëw fii ci parti euh, Assane Thiam naar fi tourné benn émission campagne émission campagne bi ñu ngi ci nar a ànd euh, euh, Sall sëñ Saliou Sall tamit ci ci parti bi bu defee ñu bàyyi sëñ Saliou mu nuyoo. waaw mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ni gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu sunu ñaari wayjur ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di rafet it tamit ah ñii nga xam ne suñuy naataangoo lañ te ñoom ñoo ñu dalal di ñaan yàlla it tamit yàlla yàlla fee ci lëmmiñ bi boo lépp lu ñu mën a laaj ñu mën koo tontu bisimilah. waaw boo defee tey jii euh, xam naa laaj yi yëpp moom tey moom day jëm day jëm ci politique bi euh, di leen wax maanaam euh, nan ngeen nan ngeen waajalee seen campagne. waaw campagne bi ñu ngi koy xel ak sago ndaxit dem nañu làmba ja te yaakaar naa ni ku ñu campagne bon dafay laaj nga benn compétence tuuti ndax du fitna du dara ñëw ak say programme ñëw ak say projet it ak engagement gi nga bëggee gox bi nga nekk mu màgg ko ba képp kuy kuy roy rek mu jël loolu ndoo tamit ñun day ñaan yàlla yaraax doon royukaay ta waaw ñun engagement bobu dal lañ jël fassiyene ko campagne mais fassiyene ñu ci xex fassiyene ñu ci xex wax ni ñi xébé waaw mo nak ñu indi suñuy programme indi suñuy programme ba xamni tay ku ñako tégal yow di nga ni kat ki ni suma ma 100 cent carte dama koy jox waaw suma ma 100 cent carte dama koy dem sànni ko ngir capacité ndax it ñu ngi si doom ñu ci si mouvement doomu yarax bon parti bi tamit nekk jubbanti Sénégal Alassane Thiam di doomu yaraax dëkk yaraax boo am tamit am am am mentalité bi am sago bi am dal bi am yar bi mais li ma si gën a neex bon moom daal mi ngi ak jeunes yi mi ngi ak yaay yi mi ngi ak papa yi mi ngi ak nijaay mi ngi yaatu mi ngi ñëpp pour yarax màgg dama ni Sénégal ndax Sénégal beneen parti bu mag bi ñoom ña nga mais yarax gi ñu nekk. bu campagne mo la campagne am. lan moo tax nga nek nag Alassane al Alassane bo boo di li tam kàddu googu nak li wara ma ma and ak ya. ñom ñi comme ni ma la wax rek nak politique politique politique politique yu bëri nañ may tay ko ci lam ko ci lam bo nee ko yow yow lan la def ci yarax man gëm ni dina la wax lu mu def ci yarax man dina la wax nak lu mu wax ci yarax mais pour mu wax la lu mu def ci yarax mais man gisuma ko. yaa ngi tëdd sa mbër de sa mbër moom lan la def sant yàlla sama mbër li mu def li mu def yarax wala boog sax li mu defagum ndax ñaan nañ yàlla am continue ba nga xam ne tey lii daw lii ñuy di ko xeex pour porter ko muy député ko yàlla defal lii tamit ñuy daw di ko xeex pour élection législative élection maire yi nga xam ne tey leneen fekkul suñu boobu du loolu yàlla ñu ko yàlla defal mais beneen bi la may ñëw si kàddu bi mais li mu def yaraax amaana yow sa dégg nga ko wala boo ko déggulee tey moo ko la ko agent ci am. non non non non man de bu ma dugal waaw rek lan la wax lan la def yaraax man bu ma dugal waaw rek. lii mu def yaraax recensé na euh, cent cent vingt jeunes filles defal leen formation te kenn ku ne maanaam groupement bu ne bokkut ak ak formation bi ngay def te tey te tey seetlu nañu jeunes filles yu bëri dañoo bàyyi école. dem toog seen kër nekk si njël yi donte baax na mais ñu am métier Alassane Thiam doomu yaraax moom loolu dafay xeex mu ne moom bu doon li koy gënal jeune fii yëpp dañoo war a ko làmbat bañ ko làmmee si métier yëpp ñu ne lan moo tax maanaam du ñu leen tàggat si make-up mais ñun ñu ànd si mu sélectionné soixante jeunes filles salle bi si suuf moo ko jël fi filles tey yii nii nii nii lañ commencé. def seen formation fay ñu si dërëm te buñ ci paree dinañ am diplôme bu état reconnaître bu ñu demoon àdduna bi nga këpp ba tàlloo loolu seen ijaasa dañuy liggéey. mais loolu def noonu yaakaar naa amul amul maanaam benn politicien def na loolu. laaj naa la ko. non man ko laaj. mais gisuma ko beneen bi tamit am na benn centre bu ñuy wax forum en maanaam informatique mais ñu ngi fi jënd ay machine am jënd na. seize seize seize machine ordinateur yaa xam ne tey xale yooyu di ay góor di ay jigéen dañ fi ngir tàggat ngir tamit saytuwaat seen xam-xam yaa xam ne tey seen parents amul woon maanaam xaalisu yëggali seen seen jàng mais nag loolu ñu ngi koy fas yéene xeex te ñun te ñun kooku lañ soxla ñun kooku lañ soxla soxla wu ñu ka xam ni day indi beneen site wala boog beneen koñ wala beneen lieu ñëw def favori que ñun ñun daal ñun na Yaraax développé. li nga defoon est ce que bi tamit def nga si suuf tamit te yéen tamit ah, mais man de gisuma ko te Yaraax gii nii nii fii laa dëkk fi laa juddoo Babacar door ku baax di sunu xarit mais politique amul sentiment maanaam boo ci naree xool sentiment diw sama xarit laa yow déedéet da ngay dem xool ba xam mën nga liggéey ak moom pas que corrompre ñun defuñu teer naru. teel naru mooy dem géej boo demulee géej boo ñëwulee doo naru non non ñun sunu mouvement bi loolu amu ci tam man ci ma ci ak man gisuma ko beneen bi tamit gisuma keneen ku dul doomu yaraax bi ñuy wax Alassane Bokar Thiam li mu def fii man gisuma benn leader politique bu ko fi def waaw man de gisuma ko wax dëgg yàlla man yàlla moo ma tiim ak sama bàmmeel ku dee ak sa bàmmeel peut-être nag yow tamit boo defee comme yitte ya def mais nag ñaan naa yàlla nga def ko nga toogoon nga. nga ni leen euh, yéen nekk si euh, maanaam si dëkk bi lan ngeen fi def ba ñaan naa yàlla euh, lool. sànq ne sànq ne dama dégg sànq nga wax Babacar Thiam Babacar Mbengue ma dégg ñu maire Maris pourquoi ñu leen koy maire Maris di ko sax di xeet moom quoi tam nekk maire en benn. waaw mais xam am politique boo ko bëggee pantal du sotti politique da nga def ñu autoroute à péage bi ni mu te bo Dakar wala dem ba Kees ni ngay def mais politique boo ko bëggee wutal yoon mais am na nag ci ñu muy arrangé mais ñi bëgg développement loolu di leen arrangé te tey bon mais euh, Maristes kenn mënul Moussa Ka Matia ba rocc ko si biir yaraax mënul nekk. mais ñoom euh, jàppoon nañ seen bopp ne comme Iran lañ nekk. Ah. foofu jëm te am na ya nga Euh, feebar boobu noonu di raam di jël Guy maris bis bu fa màggee xaaj nañ ko ñun waa Yaraax dootuñ dootuñu sax am accès pour jàll Guy Marius te tamit Marius fii la ah, loolu da yàq politique politique loolu nee naa la ko politique du ay affaire de complexe yi di su ma deew ma non non yow loolu da yàq loolu du politique bi Marius. ni ko ni ko maire bi favoriser loolu dafa ëpp te ren ñun jeunes yi bëgg développement bu baax ñun nañuy yamalee beneen bi ñi ñuy defar maraîchage te maraîchage jag amul kenn kuy dox yax bi la jam. est-ce que du yéen xeex parce que maire tabaxal na leen euh, si comme seen bi ñu jàkkaarloo tabaxal na leen tamit euh, armère yi tabaxal na leen tamit def na tamit télé télé télé. yan armère almeeri yaraax yi almeeri yaraax yi liñ bi daw dafa mat six cent mille ah, mais tabax mi bi yëpp moom dañ koy def ci mbaar ma ni <laughs> sëriñ bi yow yow dafa mel ni yow dafa bëgg ñu am ak yow gis nga yooyu yëpp du ay du ay koñ yarax li war a gën a defar xam naa ne dinañ ci ñëw ñu sonu bee bi ñuy gis ku ñu ko defaral moom nga ñu yaraax sunu dëkk bii ñuy gis te yaa ngi gis tey defar nañ fi tali am na tali yaraax màgg na mais tamit lépp nday fa war a mën a am signe te maire bi dafa war a ñëw dugal loxoom maire man gëm naa ne même moom automatique mi fi yabal mi ngi ñëw automatique mais mi ngi ñëw liggéey yi si wax yu ëpp doole. kon daal yow su ma la déggee da nga bi bu mu toogee ba léegi deful dara yaraax quoi. mais man wax nga ah man de boo ma ko man boo ma laajee man lu mu fi def mujjul ay kayit ay signature man gisuma benn symbole ñu ne lii euh, maire bi moo ko fi def. tali karo ko ko def. mais tali bi ville de Dakar rek def. stade ah, bi ko ko def. stade bi ville de Dakar kon maire bi lan la. sunu lycée bii ñuy gis. ci nguuru Macky Sall moom moo tax ma ne la lu dul signé maanaam validé bu dul yow sa signature du fi am. voilà su ma la déggee daal da nga war maire bi dafa fi dara. mais maire bi dafa fi dara tey jii tey ñun ñun dañuy dox dañuy dox bi euh, dem yenn milieu mais milieu yooyu yëpp ak gis fa ay espace vert yaa xam ne tey ñun dañuy doon dañuy rêve sax pour dëkk foofu. mais maire bi maire bi ñàkk a dem ñàkk a dem tamit bu demee tamit élection bi ma jël. waaw mais baax na mais élection yi <laughs> élection yi élection yi de élection yi nekkul sama ndono maam de man de maa fi toog di buuf suuf di wàll de. mais tamit Yara dafa am ñoo xamante ne mental bi ñuy dox ay mental colère yooyu dafa mel loolu lañ xaw a gëm ci benn côté. man bu doon colère colère ba léegi bii baa lagg mais mais affaire de politique du colère maanaam te tamit ñi nekkuñu ay seen maxa fi lañ juddoo ba am fi trente et quelque trente ak lu teg kon kooku noonu même bu ñu la xale doo xale. fekkee fekkee naa fi euh, mairie euh, Mansour Tandoor bi si jamonoom fekkee na ma fi Amadou Ba xam na euh, waaw jëm si yàlla si fekkee na ma fi ba moom mii tey ñu ñëw di Babacar Mbengue fekk na fi kon tey man xam naa ki fi liggéey ak ku fi liggéey. waaw Babacar Mbengue maire Maristes est-ce am ngeen tamit euh, capacité pour jëlee ko fi ci élection moo tax ñun ñu jël doomu ci maire Maristes. Eh, ah oui moo tax ba ñun na woon na ñu fi doon doon danaa non waaw nekkul ministre nekkul député nekkul maire dara kon lan moo waral lii nii ma ko comme dafa jantal dafa boo dafa dafa mën a jox xaalis wala wala. mais man na ma jantal. kenn top ma non non mais la du si jantal bi topp ko si jantal bi de si gën gën gën doomu yaraax lañ ko toppee. pourtant Babacar Mbaye tey maa gën tudd jantal la man nguur nguur goo mën a gis foolee ko da siy amul may tamit il est temps doomu yaraax ñëw wane boppam pas ay nañ ko essayé essayé amul ndax xamal la muy def mais gone dangay judd raam judd ñu tete la judd ñu lay indil ay lipola ngay daw di dox boo demee nag bay dégg lu leer boo mën a wax lu leer ñu ñemeloo la di la mën a yónni ngay demal sa bopp moom fa la toll màgg na màgg na mën nañ ko yónni muy demal boppam te ñun ñii incha allah bu dee xeex maanaam bu dee xeex si stratégie mooy tax ñu toog fii si siège bi mën nañ ko xam nañ ko te incha allah dañuy ànd ak moom si xeex boobu ba mu sos maa ngi dégg tamit ñu xale yi doomu leen topp est-ce que tamit mag ñi ñu ci yéen. xale yi doomu topp tey jii am na ñaar. Sonko tamit lan lañ ko doon jiw. mais mais si gis jamono ji jamono yi ndaw ñi la jamono ji yi ndaw ñi mais sëriñ bi man ñu bëri paralysé lañ man ñu biir feebar tëral na leen te man ñu biir daan nañ voté deux ans yi wala boog euh, élection yu mujj yi voté wuñ. kon xale yi ñoom ñooy yaakaaru réew mi sama mbokku sama mbokku jeunes yi ma jàmm ma profité waale ci occasion bi gis nga tey boo nekkee jeune am fulla am fayda euh, maanaam doo ñaan te te nga gëm sa bopp kon lépp luy dugg xool ko nañ bàyyi ay jiw diw moo ma neex moog sama papa la woon sama yaay feebar boobu moo fi am. man am na si parti yaa nga xam ne sama papa ma nga fa wala beneen parti sama mag ma nga fa mais que man maa nga fa kon xalaat yi xalaat yi xalaat yi man damay jëli dañoo wute nekkul ni sama papa daf ma gën a muus nekkul ni sama mag daf ma gën a muus moom dafa jàpp ni foofu mu téye foofu la man ma jàpp ni fii ma téye fii la te tamit nag pour ndëg yi dëkk bu wéree doo xamee fas buy gaawal bu gaawal nañ bàyyi ba mu tepp tepp rek te tey boo xoolee ñun sama première sortie ma su ñoo def politique. mosuñoo def caravane mosuñoo def visite proximité mosuñoo def porte à porte mais macha allah bañ ci duggee démb bërki démb ak tay jii incha allah non xam nañu xam nañu bu ñu puusaatee li ñuy dese ci ay point bi. pourquoi ñu ragal Maris wala boog euh, da ngeen mën a dem di bëggante ak euh, maire Maris. mais <laughs> mais mais maraichers bu jara mais maraichers ragaluñ ko te maraichers xam nga tax ragaluñ ko maraichers maraichers maraichers du dëkku maanaam maanaam da jàll ba si kanam da jàll ba si kanam. pourquoi que coalition bu jubbanti. mais sëriñ bi lu jub kenn du ko jubbanti lu dëng rek la ñuy jubbanti yenn saa nga dégg si mag ñi ni garab dañ koy jubbanti sax ba muy tooy mais tamit garab dinañ ko jubbanti c'est ba mu woowee. ndax bu suuf si bu suuf si baaxee garab bi man nga ko góor mu màggaat te tamit jubbante bii yaraax waxumay sax ñooy dëkk bi dañ koy wone jubbante solo gaa boobu noonu sunu mbokk présidentiel indi ko fi ñun moom la jël def ko code woowuñu kenn pour corrompre ma man sama jëmm kenn mënu maa kenn mënu ma joxe journée bu woon bu may dem di joxe dépense mais mën na ma indil ay idées yu ma xam ne nii yu compétence yaa ma moom. te loolu laa fi gis loolu laa fekk ak engagement ñee naa la sànq si biir wax ñee naa la ñun defuñu teer naru teer naru muy ñëw leen ñu jéeg si oto yi bu ñu ñëwee ñu jox la ku ne deux mille fii parti bi amu fi parti bi volontaire volontaire moo fi am si ku góor ci si ku jigéen ci ah en tout cas xaw ma volontaire moo fi am xaw ma da ngeen di xaru xaw ma da ngeen di wane seen bopp xaw ma bëri nañ di def coalition booloo ñi nga xamante ne dañ doon xeex sax léegi jubóo nañ ànd fu nekk benn yéen ngeen jëm mais da ngeen di defal seen bopp da ngeen di xaru wala la. waaw c'est parce que yoon bii jëm la ñu xam te ñëwul ko xam nga tey boo ñëwee ñu indi benn benn maanaam benn terrain ñun terrain yi ña nga xam ne dañoo bëgg ñu sotal leen ñoo fa nekk ñun terrain bi ñi nga xam ni ñu gëm seen bopp te kenn du leen sotal ñoo fa nekk boobaa ci ngay xam kuy jàmbaar ak ku dul jàmbaar. maanaam soxla nañu ay kuréel sotala kuréel pour sotala boo xoolee. daal amul daw laa ko. mais boo xoolee ñi sotalaate yëpp ñi sotalaate daaw wala démb wala bëri ci démb ñoo fi nekkoon ñu ñu ñu ñu ñu ñu jékku woon pour def lu baax mais dañoo échec léegi nag ñu bëgg a dab dabaatal mag mosoo gis mag bu nekk mag tuur na waat doon xale mënu nekk da ngay nga continuer sa aase nga bàyyi zine talent yi ñu dem. te actuellement jamono ji jamono yi jeune talent yi la ñun bàyyi ñu ñu demal suñu bopp te gis nañ yoon bi xam nañ yoon bi nem yàlla ñaan yàlla tige boobu noonu bu ñëw boobu ñuy dañ ko war a takk ci siège bi jubbanti yaraax yaraax dafa dëng te dañ kaa war a ñu ñu ne nekk ci kii bi terrain bi ñu ñu nekk ci terrain bi dañuy dégg asal ansal ansal bon lan la quoi yéen bi ngeen fi ñëwee matagul dix ans yaakaar naa wala xaw ma cinq ans sax matagul ko. cinq ans matagul trois ans. matagul trois ans waaw non matagul trois ans a def ñu ngi door ñu ngi door a politique. bayra bi kon lan la. bi mooy jub jubbanti mooy bayra bi jub maa ngi koy wax. adduna nag képp koo gis kii kii moom di dem nii di corrompe waate rek moo ko neex ñun nag ñun corrompu ñu kenn te ñaanuñu yàlla fa ci ni kenn lu ñu nga ñëw diggan ñu dalal la wax la yow lan moo la tax a jóg mu ñu déglu la si kàddu gi ñu maanaam euh, gi nga indi pour ñu partager ak yow teewul tamit balaa ngay dem dañuy jox yóbbal te tamit ñun dinañ la wax tamit ñun sunu projet yi nga xam ne fas yéene nuñ ko wéyee ci yaraax du ñàkk boo doo fi ñëw te doo ko yóbbaale te man li ma ci gën a neex li ma ci gën a neex wallaahi azim ku dee ak sa bàmmeel am ñaa ngi doon dégg bokkar anta caam day joxe xaalis boo ñëwee ci campagne bi dafay jël deux mille trois mille ñun lii doyoo deux mille lan la ñuy trois mille am bëri dañ fi ñëw diggante démb bër ci démb ñoom dégg naa dañuy joxe mais dañuy ñëw ñu ngi leen fii amuñu lu muy joxe di lekk di nga naan di naan ataaya comme ni ñu ko naanee woon sànq mais leneen lu dul loolu. pas-pas bu dëggu ak volonté ak gëm ni yow doomu yaraax nga. mais tamit dafa am ñoo xamante ne dañoo ne ci côté bi di séddale xaalis loolu problème tam. ah non man moom ñoom ah, ah, <laughs> sa xaalis moom mooy ñëw ci bañ ci gudde moom mooy dem bureau six wala mu dem bureau sept wala mu dem de déedéet ki ngay jox sa xaalis amaana dafa ñëw si yow pour xaalis bi rek mais kamu voté doomu yaraax lay doon. d' accord dafa mel ni maire bi mii moo leen taxawoon a jóg maire bi moo leen taxawoon a jóg mais dem maanaam euh, ci législative yi lan la quoi da ngeen di wane seen doon wala la. waaw mais mais nit maanaam nag bu ndaw bu ko di ko tette di ko kii tey bu dee ba am benn bu mu am dañ koy bàyyi mu bañantu mu bañantu dem jaayu ba ñuy ba ñuy dégg téeleen nag bi te ñun foofu lañ toll. dañuy maanaam dañuy bañantu wane sunu bopp gars yi dañuy dañuy sóob rek mais xam nañu bu baax a baax pënd yi di jug si côté bii bu ñëwee foofu di leen arrangé tey boobu moo tax waaw yaa ngi dégg sax ay yóbbee école commencé doomu eh, yaraa jub jubbanti yow dañoo jub boo jubbanti fii ku fi wallaahi aju man di ku jub rek laa fi gis ku dee ak sa bàmmeel amaana tey téléspectateur yi bay seetaan si ñi ma xàmmee dina xam ne nag ñii di wax duma caaxaan kat. te man ñi di wax pour ñu jënd ma du un milliard du dix ndax sama dignité sama capacité sama sañ-sañ ak it gëm gi ma gëm sama bopp kon man gëm naa ne nit benn nit sama morom mënu ñu ko rek bu nga jox sa dernier mot après ñu jàll ci bitim bi sama dernier mot mooy gannaaw bañ la santé et puis di di la sant bu baax ndax ku doo sant nit doo sant suñu borom si euh, euh, temps bi ñu jël temps bi ñu partagé te yaakaar naa waru woon mën a mën a ñàkk te tamit sax tey nit ki day baax si li ngay yëngu ñu ñëw laaj la si ngir ki lay di la seetaan ngir moom yow capacité ak qualité bi ngay waxee beneen bi tamit nañ ñëw ñu voteel doomu yaraax mouvement jubbanti muy borom fooy bu bële bi banaan bi nañ jëm si bañ jàcc ji prix bi moom moo bu baax bi. tey altaan demul ensemble pour tàccu ak fecc demul ensemble pour tenir quoi yore banaa ñëw ne waaw loo wax baax na déedéet ñun dañ jëm pour ñu bàyyi suñu projet ngir yaraax suqaliku yaraax yaraax pourtant ñun pourtant ñun amoon mais gis ma ah bu ma fi luñ ko yokk est ce que tamit ngeen ñaari yaraax amoon na ñetti député ñaar ñi jigéen kenn ku góor mais si seen taxawaayu bopp la nekk pas taxawaayu askan wi te ñun nag askan wi ñu ngi leen sunu bee bii nii si kàttanu sunu borom dinañ ko defar si ñii wala ñu defar ko si nële te beneen bi maire bi amul amul expérience. mais pourquoi maanaam maire euh, assu euh, maire rek di sànni xeer maire Maristes. mais mais parce que euh, Maristes dem na léegi nii am na la nga xam ne tey soxlaatu ko fi état civil Maristes bu dee day am état civil. maris bu demee bay am gendarmerie donte maris ay nit a fay yeewoo mais am na ci la. état civil yi xanaa amul yore xoolal. mais état te beneen bi sax ñu ngi ñu ngi toog di gërëm guddi di ay tubaab lañ xam nga déplacé wu jaar ci pënd bi naan maa ngi dem yoraat di wut tamit euh, papier tamit maanaam day xaw a doy waar foog ñu wutal leen seen état civil tamit. sëriñ bi jubbu bu ñu la xamee bis boo ko watee sa xamee jeex na ay tubaab yooyu ñun ay nit ku ñuul lañ. teew gëm sunu bopp sanu maam yi ñoom moom maris liggéey ak gëm seen bopp tey moo tax ñu resif dama da dama daneel moom loolu la muy maris yi ay yaraax benn la bu ñu ko xaajale ay yéen waa yaraax tefes yam leen fii yéen waa yaraax maris yi yam leen fii déedéet mais te d' accord terre bi liggéeyam lay def mais tam pourtant amoon na beneen stratégie bu mairie bi waroon mën a am ni xam ne ñun fii ay wóolóor lañ fi am Di war nañ ci ma defar point ba nga xamni ne mais ni war nga mëna a jéggi dem parce que ànd bi léegi du mooy nañu te pourtant maire waroon na ci xaar tànku tuddee def si lu tout ba lol non mëna dox benen bi. léegi nag maire bi ba nga déplacé yow ko bëri si. waaw <laughs> en tout man loolu mo man man man euh, du mas a nekk si àdduna. waaw waaw man la ñu gën. mi mel ni nga palais ko yóbbu ko Pikine bon ñu mel ni ñu ne ville de Dakar ñu jël yóbbu ko Grand mais lépp looy gis ak base base la xanaa bâtiment du bâtiment rek. non bâtiment non du bâtiment rek de nee naa la base daa am solo lépp looy gis dafa am fu mu sosoo. ma gis ko Maris. ah mais mais te tamit balaa ñuy yegg si foofu yëpp doomu yaraax dina ñëw faxas toog incha allah balaa ñuy yegg foofu doomu yaraax dina ñëw faxas toog beneen baawaga ne nag gëstu jeunes yi nekk si commune bi yi àndul ak moom politique nekkul ni su ma àndul ak yow boo may ñëwee projet wala boo ñëwee wax ma lii ak lii duma si ànd loolu du politique loolu corrompe la te ñun ñun dañuy xeex si corrompe. dañ ciy xeex ba yàlla yóbbu suñu bakkan yàlla ñu am téeméeri at loolu dañ ci war a mën a xeex ñaata jeunes ñoo fi fi nekk am si nit ñuy mën a yëngu mais non non dañ ràññee si benn parti rek yow nga ñëw demande leen ñu la <laughs> bon àndoo bi pour lan. parce que man euh, politicien moom seen wax moom daanaka moom boo la jeex moom <laughs> léegi daal sa kàddu gu mujj yaa tëj dem ci mitin bi. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous jour vote. incha allah na ñëpp sance ba rafet sang ba set xel neex ndékki bu ñu dem bu ñu xuloo te tamit nag may profité waa si occasion bu kenn yóbbu nataalu kii nga ñëw naan dañuy da ngay voté bu bu ko sax wane mooy wane ko sa xol te ñun doomu yaraax li ñuy def dañ koy ëmb yóbbaale ko dem ba ci mbañ gàcce ga te feu bu bleu blanc bi ak rouge bi dugal ko ci enveloppe bi dem dugal ko ci biir kees gi. di ñaan nag yàlla na yàlla may sunu boobu Bocar Alassane Thiam mi jëm sa député ba jëm sa ensemble toogal fi gox bi gox bi mooy yaraax toogal fi yaraax yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla muy sutura yow it yàlla na yàlla muy sutura site bi na si ñëpp dem abonné te macha allah képp ku bëgg information bi leer rawatina commune bi Sénégal loo mën a déglu rek dama ci kuy dama ci site bi incha allah nga jëm abonné. tey partagé vidéo bi di ñaan yàlla sunu élection yi ñu jëm nii yàlla si yàlla may ndox mu sedd guy ba lépp luñ si yéene muy pouvoir muy doole yàlla ko yàlla may jërëjëf. ñu leen di nuyu dina gërëm di sant bu baax euh, di wax tamit comme ni ko ñenn ji di waxee euh, maire Maristes ñun tamit ubbi nañ leen bunt yi soo amee loo xamante ne tamit war nañ koo lañ ko suñ bunt pour mu ñëw leeral wala boobu kenn ku bokk ci moom tamit mu bëgg a leeral mën ñu bëri daal ñu ngi koy jiiñ meeru maire Mariste yaakaar naa mm, maire yi ànd leer war a wax waaw kon yooyu yëpp daal eh, jàmm ay leeral ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu mu bu